asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi noo ngi lay nuyu bu baax sëriñ Habibullahi Mbakke mu Cheikh Amadou Fadal di jaare ci yow nuyoo sa kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam yoon wi ak ndaw ki mag ñu boole suñuy ñaar dërëm ak suñuy dërëm ba mu ci lim bi tey di téeméeri junni ak fukk ñu ne woon nañ ñëw indi ko ci liggéey bi jaayante ko ci ndax xam mbooloo la moo xam ne dañoo daje rek ngir liggéeyub sëriñ bi nii ñu ko defee fii noonu lañ ko defee ca Poroxaan jël fa ay maam jaara yoo xam ne ñoo leen di yoreel seen lépp nañ ko waxee ci prénance boobu suñu Isaaqa doon wax ba dagg nañu rochier yi jébbal nañ addi yi it sëñ Muntaxa lii it moo tax ñu indi ko fii tey ci kanam ndax xam nañ ne liggéey bii nga jiite muy Tuubaa ca kanam day ñaanu sëriñ bi ku nangu ndax sëñ Mouhamadou Lamine Gaye mu baax ma daana wax ne li ma dégg sëñ tubaa wax ko ci Touba ak li ma déggut ak li ma gis sëñ Touba bind ko ci Touba ak li ma gisul xanaa sàgganteeg doomu aadama nekkoon ku fa teg sa tànk benn yoon man nga faa bañ a ñëwaat te sa yitte faju te loola dana dëppoo waxi sëñ Cheikh Thioro ma mee ca mu mag ma moom sëñ Mor Anta Sali ma doon wax ne huwa allazi man ataa man li maskanihi xayral masakini tuuba min daddin xaraja ne képp ku teg tànkam ci dëkkam ba rek suñ borom muccal ko kon nag tuuba ca kanam ab liggéey la boo xam ne boo gisee tey mbooloo mi jóge fu nekk daw jëm si ci moom di jël seeni alal di joxe boole ko yéene tàmbalee ko ñaar téeméer tàmbalee ko ci am fanweer tàmbalee ko ci am fukki dërëm liggéey bi ak si fii tey ba nit di jaayante ay millions di ko def waaye lépp Serigne Touba barke ga ma nga tàmbalee ca bu doon fukki dërëm la wala ñaar dërëm nit def ko te Serigne Touba tax Serigne Touba ful ko fay la ca ndax Serigne Touba mu xàmmeewul junni mm-hmm. akub dërëm xàmmeewul takkub soccu ak milliard mm-hmm. moom pas-pasu ki ko joxee li tax mu joxe ko rek a tax ku ko joxe ngir bëgg a mucc ak bëgg raw boo ñëwee fi mu mucc ndax man laa sa xàqan bi si taatihi arbaxatun mm-hmm. fawsun waxu xufurun wa ridwanun wa asraaru sëñ Mor Lamine Diop daga nee na boo dawee jëm ci sëñ bi te la tax a jëg bu fekkee ne ba ngay joxee ca Touba ca kanam wala làqutu ji la nga bëgg a mucc am na fa bu lee ngërëmul yàlla am na fa bu lee mbóota ki sekkare it am na fa waaye saa yoo ñëwee fi moom it bay dem ñeent yay gàllankoor nit muy bakkan ak bànneex ak àdduna ak seytaane nee na saa yoo jëfee fi sëñ Tuubaa bay dellu wa saayalatu alal ahdaay arbaatun suun dalaalun wa ixwaun wa xarraar da ngay mucc ca yooya boo delloo ba toog fa kër it barke bii nga séen mu gën la loo ci biir kër Sëriñ Tuubaa yi nit ñi wetti ñam di maye yére xéewal gi di gëndaloo wet gu nekk nungug ñaan googee rek ko indiwaat ba tey ndax wa kaana min fadli mawlaana alkarimi lahu mayrun wa xayrun wa anwaan wa asiran kon ku ñëw fi moom am ñeent mucc ci ñeent boo yeggee daje ci ñeent kon nag noo ngi nii tey te kanam sëñ Habibullahi Mbakke di ñaan yàlla it bépp soppe boo xam ne suñu borom ndax ñii dañoo tënku ci ab kuréel bu tudd euh, kuréel soppe Gana Messere ci whatsapp bi waaye fu soppe nekkit noo la ciy soññ te xam ne foo la gën a jege loo ca mën a defee defe ko loo ca def dana agsi ci sëriñ bi te lu na nit ki di natt boppam da ngay natt sa bopp bi nga nee defal naa nangam sëñ Tuubaa nga natt ko ba dellu si waat ci déwén boo koy def nga defe ko yéene ju sel defe ko ak dëggu defe ko pas-pas bu leer loola nag kon mbooloo muy sëñ bi nga ñaanal leen bu baax a baax ndax nun kat danoo danoo danoo dañ di ay dongo yoo xam ne wax baaxam gii rek nag moo nu may li nu am amuñu sañ-sañu bit kenn dañu jox xanaa damay wax ne bu nu toogee di wax baaxam gi de naan sëñ Tuubaa nee na bu nu sëñ abi bu muy joxee danañ jël bu nu sëñ Muntaxa joxee danañ jël am nañ fitu boobu bu loolu waay jox ñu jël bu ñu fa jógee nag ba tokkee suñuy kër loolu waay jox ngir jëmmam it des na ko delloo fa mu war a dellowaat te mooy lii nu def nii tey jii waaw kon nag Mbàkke noo ngi sàkku ñaan nga ñaanal mbooloo mi mbooloo mi ñëpp a ngi maase danañ te doxin mbooloo mi it fi ne ba sëñ bi joxee ndigalu alxuraan ji tàmbale nañ ko ndax borom yi xam-xam a ngi ci ay nit yi alxuraan a ngi ci sasoo di jàng alxuraan di ñaanal sëñ bi te tey déglu ndigal non lii nag day tàmbale rek waaye ñaanal leen fu ñu toll lu ñu am rek andi ànd koog liggéey sëñ Tuubaa jërëjëf Mbakke kon may sant boole mi ànd yëpp <coughs> di leen gërëm di ñaan yàlla musal leen musal leen ci waru musal leen cet ak am ndab ak Seex Xaadim te yëngu yi dag yëpp yàlla yàlla sëñ bi nangu ndax am solo ndax fi ñu toog rek diggante fi ñu toog rek jël nañ fi ay durus yoo xam ne mën nañoo xam ni ni mën a jàng weer wala ñaari weer du ko fi jëlee ci ci ci ci ci cofeel ak lu yokk bëgg Sëriñ Tuubaa euh, loolu fargas la daal ne nee na doon sa doon ak caa fenn ñoo ñi nga dégg ñoon tudd kenn doon ak caa fenn dëgg de seen baax gi ci ñoom dëgg la Sëriñ Tuubaa day greffé day greffé day greffé waaw mhm. garabu garabu mango mhm. maanaam doomi soo day génne mu mu mu jël greffé mu jël kent Euh, teg ko ci def ko ca garab gu ba jiitu lay judd mooy mag ñi yow ci ñëpp kenn ku ci xam seen bàyyi xel waaw waaw kon nag bàyyi xel loola sëy yàgg bëgg suñu tuwi dañu di bëgg alhamdulilah rabbil alamin ñaanal nu sax ca waaw loolu loolu ñu ne ko gën a kii ndax loolu bëgg moom kenn mu ko cuisi waaw seeri dafa li ñu am ñu lépp suñu tuwi bëgg ko bi yàlla moom daa bëgg yonent bi yàlla bëgg ko ba noppi. Hmm? xam nga yàlla moom tale moom ku naan nañ ñëpp yu liggéeyal la. Hmm? Eh, man sax ko liggéeyal ak malaayika yu ne yéen ñëpp wax la dëgg léegi kooku bëgg rek waaye deful yàlla ko defal doon loolu. wax nga dëgg bëgg rek am solo. waaw ah, kon bëgg la kenn xamul fu mu nekk moom. Hmm? ne nit ñi bi nga xamoon rek dañ ko jàpp jël nangu si ko waaye kenn mënu ko xam. waaw ah, loolu nit mere mere mënut a mënut a a nangu sa bëgg Sëñ Tuubaa. déedéet lu la bañ bañ mënu ko dindi. lu ñu la contre contre mënuñ ko dindi. Ah, kon nag bëgg sëñ bi rek mu am yàlla mi ragal gi yëpp jaamu yëpp ci am wala yàlla ragal moom dëgg la yàlla nañ ko nañ ko mhm. bëgg rek. boo xasee bëgg boo bëgg lépp ci biir bëgg. dëgg la marché ku fay dem ak bëgg la fi yóbbu. kenn xëy di marché taxawaar yi dëgg bëgg rek daa am kon noonu nga nekkee eh, mbooloo moom ak ñun ñëpp ànd nañ ci yéen. alhamdulilah eh, ñu ñaan li nga xam ne def ko eh, ànd ak mbooloo moom indi ko ci li mu sëñ Tuubaa ànd jaayante bi ñu ñaan ñu sëñ Tuubaa fay ñëpp yàlla ñu ko bokk. dañoo wax ne dëkk bi lii moom Tuubaa ci bu jàpp ne benn kuréel la boo xam ne ay nit ko suivre déedéet ñëpp koy def ñëpp a ñëpp a jëriñ yi ndax suñu tubaab lañu départ ci fi la yem waaw génn suñ benn yoon nag moom ku génn yaa génn sa ko indi nañ defoon ko def bu kenn jàpp na am ci pegg ci tubaab ci kanam ci dugg dé ak ko sosoo ko ñëpp ñëpp jëm ñëpp jëm kenn yilifu ko suñ tubaab ko moom waaw loolu lay bëgg wax adduna sëpp ñu xam ko nañ xam ne suñ tàmbalee ci suñ tubaab waaw man mii da am ay ay ay jafe-jafe bi sa ay nit ñëw di ma laaj xaalis ci tuwaay kanam day diggante xaalis baa ngi dugg nangam nangam dañu bëgg mel ne sëñ bi ni ma ko arabal sama bopp laa ko arabal ñëpp waaw koo la du ma ko lekk du wàññi doomu aadama xalaatu ma ko dëkk suñu tuwaay bi dañu laaj ko dëkk suñu tuwaay bi ko dugalaat waaw loolu foofu lañ nekk ko ñëpp xam ci àdduna waaw képp ko xam indi def seen loxo suñu loxo ko teg te moom mooy Sëriñ Tuubaa tey jii waaw mhm. ah, tey goon fay ab bor Sëriñ Tuubaa doo ko laaj ay bàkk doo ko laaj kenn moom nga dikk doo ko fay moom waaye kon ñun ñëpp marché na jàppale ko mhm. nga ab liggéeyam la mhm. taw fee tam la ko yàlla defal hmm? ñu ko ñaanal yàlla bàyyi ñu ko fi yàgg-yàgg ah. kon daal nga sa jërëjëf ñu lay sant di sant mbokk mi bala ñu ànd yëpp te ñaan yàlla def leen ah. tey ñoom itam yàlla euh, musal dimbal leen ndax bëgg ku baax mooy baax rek waaw ku bëgg ku baax ku bëgg kooku kooku ku bëgg ku bëgg rek ba fa ba fa yem noonu rek la waaw kon jërëjëf yal na yàlla dimbale sutura leen taxaw leen salliyan wa salliman alayhi wa kulli man qaddimtama ilayhi waghfir sunubi wa taqabbal amali wa liya khayra munan wa amali